Mbakke kuréel bi de kuréel bi de neewoon nañu dañu la bëgg a siyaare rek euh, xasidatu ziar moom moom yaaman bi am ndaay yi dañ la ko bëgg a rek jox la rek kàddu gi sëñ Ablaye bisimilah. yaaman bi am ndaay Allah salaam bismillaahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim alhamdulilahi rabbil alamin ne nag jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim alhamdulilah nee na wax jooju nga jottali ko mbooloo mii fi nekk yépp it ku ne wax ko te wax ko ndànk nag ba nga xam ne dana sell lool waaw Cheikh Mouhamadul Muntaxa nee na fu way ne na teewlu lii mu wax kenn ku ko dégg rek na ko wax fa mu ne waaye ci dal nan ko def fañ ne te teewlu ko fas ko suñu xol dafa wax ne jërëjëfe naa Ahmadul Xaddim dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin jërë jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim ku ne wax ko ñetti yoon alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim cheikhana ahmadul xadim jërëjëfe cheikhana ahmadul xadim waaw moom xam nga nañ ko teewlu bu baax ni mu ko waxee ñu defee ko waaw kay da nga koy baax mu ñu ànd alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe cheikh cheikhuna ahmadul xadim jërëjëfe cheikhana ahmadul xadim cheikhana cheikhana ahmadul xadim jërëjëfe cheikhana ahmadul xadim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Xadim jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Xadim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Xadim jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Xadim mu ne lépp sëriñ bee ci moom la jógee ci moom lay dellu biir dëkk ci xalaat mbir yépp mbir mu réy la tënk naa ko ci ñaari baat ndax ñu gën koy mën a xam gën koy mën a dégg gën koo mën a dunde ñaari baat yi mooy yan mooy wéetal sunu borom ci lépp doyloo Sëriñ Tuubaa suñ digganteek moom ci lépp nañ ko tënk foofu la la mooy ñaari baata ca dolli ko nan fas yéenaa sax ci jaamu yàlla sunu kem kata fas yéenaa sax ci liggéeyal sëriñ bi ci lépp lu baax lépp lu baax ñu jébbal ko ko fas yéene koo liggéeyal kon nag noonu nii la sax ci jaamu yàlla sax ci liggéeyal sëriñ bi te yàlla rekk a tax noonu lekk la kàddu yi ma doon wax ci gannaaw euh, tabaarakallaahu gone yi dellu nañ ca moo di rekk sëriñ bi la ci am solo ci nun nan fexe gannaawal lépp sunu kem kattan te yàlla rekk tax la ca dolli ko nu jublu sëriñ bi rekk di ko jéem a gën a xam di ko jéem a gën a dund jéem gi gën a dund moo di sax ci lim bëgg rekk te moom amulu bëgg lu dul boroomam rekk ak wéy ci ndigalal boroomam ak bu ak topp sangu bi yi mu ko booleel loolu foofu tënk bi foofu rekk la nan jéem xam loolu rek nan ko jéem a dund nag sax ci dàkk alhamdulillahi rabbil alamin lépp sëñ yuusu waxaale na ko ci kàddoom yii doxin wi wenn rekk la mën a doon du doon ñaari doxin munte doon ñaari doxin waaye nag yaatu na lool nag dox gi moom yaatu na doxin wi ci gannaaw sëriñ bi wenn rekk la mën a doon won gannaaw àdduna dara bañ caa te jublu sëriñ bi sax ca dàkk la cay des nag mooy yéene sa kem kàttan ci lu baax di def lu baax rek di bañ lu bon rek te sax ca dàkk tënk baa ngoo jërë ngeen jëf kon sant rek moo ci des di seereel nag sama bokk yi taalibe yépp sama bokk yi jullit yépp sama cant ak sama bokki isbu tarxi yi waxoon naa leen ne du man du yéen lépp sëñ Tuubaa sëñ bi dañoo jóg rek ma xelmati leen gëstu leen tuuti gëmewuma leen ma ànd ak booba ba léegi kon nag mel na ni leer na dama ko waxee woon ne ko du man du yéen lépp sëriñ bi xam ngeen noonu fañ tàmbalee di dox ba ci jotaay bii loolu duy caaxaan lépp lépp sëriñ bi digg ma boroom rek léppam daraam génnul diggante mag boroom kon nag lii moom sëriñ bi dong na diggam ak borom yoonu kenn nekku ci suñu yoon nekku ci xanaa kay di gën a gëm di gën a wéetal di gën a bëgg di gën a jublu sax ca dak loolu rekk la du leneen ne sëñ Yuusu kàddu yi dégg naa ko yëpp waaye gëm naa yëpp it Hizbut Tarqiyyah ak li aju ci moom lépp alali sëñ Tuubaa gëm naa ko doog di gëm naa ko te noonu rek laa fas yéene dund ak yéen incha allah feek maa ngi noy li ci sunu kanam lépp sama xel dal na li ci sama kanam ndax du kenn lépp sëriñ bi dara suutut suutut suut dara suutut lépp ci loxol sëñ na xel dal bu baax nan dundee sëriñ bi rek sunu kam kattan bu ko defee rek ñu wàcc la ca des ñu bàyyi ko sëñ bi loolu rek la nee sant naa leen lool loolu doy na loolu nag dëkkoog doy rek doomu aadama la fow nag mënu ma leen ñàkk sant waaw hmm. doonuma ci dara waaye nag doy tig doomu aadama moo nekk ci ñëpp mool moo tax nag mënuma leen a ñàkk sant loolu rek la loolu du leneen waaw lépp jeex na alhamdulilah alhamdulilah na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal seen loxo mu ñaan na ñëpp tàllal seen loxo xale yi ak soxna yi fañ nekk nañ toog ñu ñoo ngi ñëw teg leen ciw yoon na ñëpp ne amin yàlla na fi lekk loolu tamit amiin amiin